sëñ bi maa ngi lay maa ngi lay fay soxna si. bi naka la sant. El sant Ndiaye. El lan nga ci Basirou Mbaye mi nga xam ne moom lañu ñu faral. may rakam nga ndey. lan nga ñu mën a wax ci situation bi nga xam ne dal na ci kaw. ah waar rek métti waaw mi mbirum mbir xamul mbirum ne ñi ko defee te ay mbokk lañu eh, ñii doom lee ay mbokk xam nga dëkk bi ay mbokk la ñoom ñëpp mm, waaye. situation bu doy waar moo am ndax ci mbirum jàkka rek ci la mbir mi amee euh, ni mu amee mooy jàkka ji jumaa ji sa liggéeyub jumaa ji moo jiitu jàkka ji waaye waaye nisirub jàkka ji moo jiitu jumaa ji bi ni xam ne moom la nisir jàkka ji pour defar ko mu jiitu jumaa ji ndax école baa ngi nii ak école baa ngi nii euh, terrain bi ki ko ko mayeen mi ngi fi moo ko ko may fekk na booba dëkk bi dafa am benn école bi nekk fee boo xam ne ñëpp ñoo ko bokk am ko fay jàngale njàngale mi nag desee dox maanaam doxul na mu war a moom ku ko ni lu baax rek bëgg mu xool njàngale mi ñu jàng at xale yi seen njàng doxul muy leen njàng mi doxul ñi mu nekkal nanguwuñu ko dégg mu ne man damay génn samay doom wuti ñu leen jàngal ndax fi ngay ndaw ci ngay mën a jàng waaye am na foo xamante boo fa àggee soxla dab la pour nga mën a jàng xam-xam dootu yomb kon profito jàngal say doom bala ñoo doon mag te ci am solo mu génn ay doomam yóbbu leen dëkk bu ñuy wax caaran foofu leen boole ci benn oustaz bu ñuy wax Moussa Sarr ñu fi jàng ay quelques années bañ demee ba loolu am bas ni Moussa dama bëgg ñu wut benn nga wutal ma ab jàngalekat bu may jàngalal samay waa kër sama kër musaa wutal ko ay jàngal ab jàngalkat bu dëkk fële ci Dayaa Njóob ci ginnaaw Mewane mu ñëw ci bâtiment bii boobu demeegul noonu foofu la tabax foofu la ko la dugal kii bi école bi dafa jàngale dafa jàng at mi nga xamante ni ci lañu def benn conférence dëkk ba xam ne leen bas wax dëgg la ñu mujj jël seeni doom di ko indi ci école bi ñu dem ba xëyutul fii ñu yóbbu ko ca bayal bale alxuraan la waaw ak arab ñu yóbbu ko fee dañ ko yóbboo euh, ñu xale dafa jàng dafa jàng dafa jàng ba mujj bas ñaan terrain bi ñu may ko ko mu tabax fi école bi mu tabaxee école bi ñuy jàng ba heure bi léeg-léeg nag eh, ci jamono yooyu la ma wax ni ma école bi kat parce que bu ñu génnee cinq di jàpp di julli gone yi ci suuf la julee jullee amuñ fu ñu julee garab bi ni ma euh, dama bëgg ñu tabax fi jàkka gone yi bu nu génnee dafa julli même mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekk fii tas soriwu soriwuñu gox bi dëkk fii bu waxtu ñu fi joxe seen julli juróom booba dëkk bi waxaguñu waxi juma vraiment ku nekk ak sabamel léegi bu loolu amee e, nit ñi nag commencé ni dañoo bëgg juma mu ne dañoo bëgg juma gannaaw bi engagé juma ci di tabaxal leen ko ak emprunté ki ci la bokk dégg nga euh, tabax ko ba mu raase ba àgg fa mu war a àgg bi mu àggee fa mu war a àgg ñu jiiñ ko ci ay tuuma naan ko fenêtre boo jël ak koy kii moom moo maîtrise lool nodd gëm doon nodd ak yooyu yëpp ñu daal ko koy tere ne ko dootoo juli ci jàkka ji dootoo dootoo fi nodd léegi say segam nisiral na jàkka te ba mu koy nisir yàgg na booba fii xamaguñu dina am jumaa wala déet mu ne kot kon nisir ba ma defan naa ko continuer ngir bàyyi leen nag lee ñu coow ñëw ci li ñu ma may te ma tabax fi école ma tabax fi jàkk ñu ñëpp ñu ci bokk di ci julli jàmm commencé ñu ne ko doo jullee fee doo fa noonu waaye doo tafa jàkk ci li nga moom comme loolu dafay di doo ta doo jullee ci li nga xam ñun ñëpp ñoo ko bokk te doo tabax jàkk ci li nga moom loolu la ñu topp di ko topp ba jël ci bakkanam Euh, jël gi bakkanam nag euh, li ko li ko sabab mooy lundi bee passé si ngoon si damaa toog fii sama kër euh, grand bi yónnee ci man ndaw doomam mm, ne ko wool ma sa sa papa mu ñëw ni ma wiil sama papa ma ñëw bi ma dikkee maa ngi fi fekk ay quelques personnes ku ñuy wax Mansour Dieye ak magam yu ñuy wax Njaga Dieye ak Mor Mbaye Wade ak ku ñuy wax Aliou Guèye ñu ñëw bëgg a dal ci kawam ni ko tawax bi moom suñu bakkan lañ ci teg wala yow bi dañ lay faat yow comprendre nga maanaam lënd bi ci lañ ko waxee wax jooju ba mu ñëwee ñu xool xam situation yi nii mbir mi bu buñ ci bëggee buñ bëggee do doxe doole maanaam metti ci ñoom parce que du jàll parce que ñu fi nekk lépp doole ñu daal di arrière dem. Eh, ca suba sa ñu daje fee ci kër chef de village lépp lu may wax nag chef de moo ko jiite ak imam parce que boo jiitee ab dëkk ñun dañoo paan borom dëkk dañoo paan imam ak Pape Dieye waaw ñoom ñëpp parce que ab dëkk boo ko jiitee waruñoo waroon nangu sa kër ñu ciy def benn ndaje pour faagaagal nit. wax nañu ne imam bi moom aussi laale na ci le fait que ñu faat. absolument waaw moom lépp moo ko jiite ak ak kii. ndax ñoom ñaar dañu mosoon am dagg-dagg. ñoom non non non sama doom de kër borom kër gi yi nga toon xool kër gi kee ak yaay imam be bokk ndey baay imam bi yaayam Assa Ñang la tudd sama yaay Anta Ñang la tudd sama yaay mag yaayam sama yaay mooy mag yaayam comprendre nga baax yaayam bi mu fi nekk dafa déggal sama yaay lu ko sama yaay déggal lay def lu mu ko tere lay bay waaye amul fenn benn askan bu yàlla garanteel ne ku ca judd di nga jub amut benn askan wu yàlla garanteel ni askan wi ku ca juddu di nga jub moom amut. kon maanaam moom ci yan critère lañ ko defee imaamu juma ak xam nga imaamu juma imaamu juma ji xam nga imaam ñi koy tànn dañuy am xam-xam boo amul xam-xam mënoo tànn imaam dëgg-dëgg. ñi ko tànn amuñu xam-xam ndax ko xamante ne xamul farataak sunna xamul maanaam maanaam doomu aadama maa jullit dëgg dëgg ni mu war a taxawee kooku naka lay fale imaam maanaam dañoo doxee dooley boroom dëkk donc lu leen neex lañ bëgg def te amuñu xam-xam bi amuñu mentalité bi. moom imaam bi jamono ji mu ngi ci loxoy yoon. mu ngi ci loxol yoon si eh, depuis lundi ci mardi bi si. wax nañu ne également am na fukki nit ak benn yuñ ci jàppale ndax dëgg la. absolument si. bari na ci laa bëgg a ñëw léegi bu loolu amee e, ca lundi bi lan def loolu dégg nga ba xamee ne du jàll ñu arrière ci suba sa ci lan tamit sa ci talaata suba gi la dem kër chef village bi ñu def ci seeni i e, waxtaan seen waxtaan pour bëgg bu ni ni bu ñëw jàkk ci nañ ko fi nañ nañ ko songu. pour def ko nañ koy def maanaam nañ dal ci koom ci laay wax ne est-ce que kooku mat na imam est-ce que kooku mat na borom dëkk ci koo xam dañ laa jiital waaw du doy waar la ma tab tool léegi bu loolu amee ma teel a xëy sama kër ñëw fii fi grand bi fekk mi rabu fer rabu kii bi élément yi si mu ñëw toog ci wetam ni bi ñu toog ay quelques minutes kii sama sama tontoon sama yaay la sama rakku yaay la ñëw toog ñu toog fa luy yàgg ñoo ngi leen gis ñoom bañ jógee kër kër chef de village dañoo ñëw toog fee bañ fa toogee ñoo ngi wax seen i téléphone léeg-léeg ñu ñëw fii wax seeni i téléphone xam naa dañuy dañuy dañuy woote pour ñu dajaloo pour mën a euh, def li ñu bëgg a def bu ñu toogee ba mu yàgg sama nijaay mii gis naa mu jóg bi mu toogee xamum daal wérul mu ni bas kon baal ma àgg kër ga te ñëw ndax booba toogaay bi métti na ci moom ndax moom wérul bi mu génnee dem. ma des donc man na grand bi ma fi desee ma moom ma toog ba caag ñoom ñu génn dem gisatuma fi kenn sama téléphone bii fekk moo mu iskaarike ma doon ko saate sama kër léegi ma ne grand bi xaaral ma jóg dem jëli téléphone bi te ñëw jël téléphone bi gën gaa yàgg du mat 4 minutes gi nga bi ma waax waax bu dëgër dem di jël téléphone bi ma ko ruccee ci kaarike bi dugal ko sama di ko dugal sama poos laa dégg yuux yi dal yuux yi yuux yi fii ci école bi fii ci daa ci ci ci jàkka ji léegi bi ma déggee yuux yi. hey hey hey hey bu leen dóor bàyyi leen bu bu leen dóor hey bu bu leen dóor hey bale ñu ñu ñu yàq hey bale hey hey yàq leen ya ya yàq leen yàq leen. lii suñu bagaas doo ko dagg yow. waaw kon jëlee leen ko. jëlee wul ko bii moo leen ko. yow yaa eh, eh, eh, tagal néeg ma profité ma daw bi ma dawee di ñëw comprendre ma dawee di ñëw ñu gis ma may daw di ñëw xam nañ sama jikko xam nañ ne man grand bi dama lay protéger dégg nga ñoom ñu daw dogale ma moom engagement dama daw damay daw di ñëw ñoom ñu génn ci xeex bi daw di ñëw ñii ñoo dawoon di ñëw Mor Mbaye Wade imam ñaar rakkam ku ñuy wax ablaay fay Ablaye Wade ak ñedd ñu koy wax ñedd am na benn tur koy wax wu nekk ci carte d'identité Ibrahima Wade ak Papa Dieye ak Cheikh Ba ñoo ñoo daw engagement ak ah waaw ñoo daw fii engagement bu ñu ma dawee daal di may dogale engagement euh, euh, kii imam daal may dóor jees fii gàccu jees sama mbagg mi fii la la dóor jees dafa ngànnaayoo woon jaasi. waaw ci laa bëgg ñëw dafa ak paaka sax parce que bi ma dóoree jaasi jaasi lemu daal di mu perte jaasi mu wadd après ci la daanu ci ñax mi moom ñax mi nekkan foofu bu la ci da cee daanu bi mu ci daanoon nag daa daal di jóg bu gaaw daal di def nii traite mbubam am na mbub boo seetee vidéo yi am na mbub mu zone moomu sol ak benn salopette mbub moom mu la def nii daal di koy génne daa waa paaka bu gudd daal dama daal dama koy kii sama sama kanam. ma def nii mu jàll bi mu jàllee kii nu mu toti eh, ki ñuy wax Ibrahima Wade ñedd daal damay dóol pe peel bi mu yoroon mu dóor ma ko sama bopp après bi ma ko dooree ma perte contrôle léegi kële kee mu jële ma fi moom fi jële ak Abdou Niang yóbbu ma sama kër maa ngi dégg ci kàddoom maa ngi damay bu ma àggee ba xaw kii maa ngi dégg ci kàddoom mu ne ah ma du ma la bàyyi. ñu lay ñu nga dem ñu lay rey parce que ñoom def nañ leen def def nañ leen def ba nopp duma bàyyi ñu lay rey ndax liñ bëgg mooy rey la ma ne ko léegi bàyyi ba mu ni ma du ma la bàyyi ñu lay rey ndekete booba def nañ grand bi liñ ko liñ ko bëgg a def ba noppi léegi ñoom ñu wàññeeku ñu sama buntu kër pour bëgg a jot ci man pour renk lañ def grand bi mënut a mënoo jot ci man ñu continuer dem bi ñu continuer dem kii nag xam ne xam naa dafa xam ne dem nañu. mu daal may soog a bàyyi ma génn ñu tijji bunt bi ma génn bi ma génnee laa laa ma tourné pour pour dem ci moom laa jàkkaaroo garab bi ndekete eh, def nañ ko ñu ko def jam nañ ko gaañ nañ ko jam yu méttee métti dóor ko ay jeer eh, bi mu ñëw ci man aussi dafa mel ni ku yor ko di sujjóot ku yor ko di bi julli daal ku ni muy def jàppul ni ay woom di loxo defu ko waaye dafa sandaamtal ay loxoom rek yóngu noonu rek di yëkkati ndànk di teg ndànk di yëkkati ndànk waaye nag heure bu yëkkatee ndànk na maa ngi gis deret ji li muy li muy li muy li muy li muy li dégg nga mbub mi moom dafa mel ko koo xooj ci paanu ANCAR léegi muy ñëw ba fekk ne Abdou mii mooy kii mooy rakam euh, kii mooy mag Abdou Abdou nar koo laal ma ne ko bu leen ko laal ndax bu ngeen ko laalee dina daanu fii ci wiyaa bi ci mbedd mi taal xam naa ni seen xam naa xam naa xam naa dooleem xam naa jëmuwaayam xam naa li nga xamante mooy fitam wér na ma ni bëgg xam naa ne leer naa ma ni kii moom dootul jóg waaye sama kër la bëgg a wàcc ab liggéey loolu man xam naa ko ci sama gis-gis léegi muy muy bu ndànk teg ndànk ma bàyyi ko rek muy may arrière mu di ma topp may arrière mu di ma topp may arrière di ma topp ba ci ba ci buntu kër bi dafa xaw a ji yëkkati ko tuuti muy yëkkati tànkam teg jàll bi mu jàllee daal di toog bi bi mu toogee aussi dara jàng koy. kii rek day jàng mi mi ngi tuur rek mu daal ma may tàllal loxo loxo droitam bi la ma tàllal bi ma tàllal loxo droitam bi dégg nga daal di fab kanamam gii dëpp ko ci suuf daal di fudutu daal di wàccub liggéey foofu la wàccub liggéey sama kër sama sama sama kër bi mu fa wàccub liggéey léegi ma jël ma jël ma jël euh, gi nga xamante ni moo nekkan foofu muur ko ci Eh, bi ma ko ci muuree léegi daal ko fee bàyyi nu ndekete doomam ji ana doomam xale ba Boubacar moom mooy kële waaw ki nga loxoom ba nële ndekete gaañ nañu ko xale bi ñëw kër ga ma xool ko gis mu takk loxo bi deret ji bari lool ma ànd ak sama nijaay mi ngi dugg ci oto bi kii laa àndal keroog mu gunge ma bas ñu sàng ko ci kër gi bàyyi fa ak ñeneen ñu ñu am sikk ndax booba bu ñu ko bàyyi woon bunt bi nit ñi mën na ñoo ñëw te xam nga booba musa ma na am fu ñu gis ko léegi ñoo garde bunt bi tëj ko am na ay quelques personnes yoo xamante ni ci kaw miir bi lañ jaar wàcc dégg waaye gars yi dañ leen a génne wat ndax bëgguma moon ñu laal ko ndax euh, ta autorités yi ñëwuñu def ci liñ ci waa def léegi maa nag sama nijaay mi dem bi demee ci médecin bi nekk piir ñu koy wax Karbalo sama nijaay mi fëgg bunt bi porte bi mu ubbi ko mu ubbil ko ñu dugg ci biir ñu waan ko situation xale bi ñu jam eh, ma ne ko nag léegi dama bëgg nga fajal ma ko ndax ma ne ko dafa am sa lu xew ndax moom gaañ nañu ko waaye papaam di sama mag euh, jam nañ ko jam yoo xam ne ci xeexu ju jà dañ ko fa fekk ci jàkka ji belee ko fa gaañ ko ba dox na ba ñëw sama kër waaye fa la faatoo ba maa ko sàng foofu teg ko fa eh, dama bëgg nag nga fajal ma kii ndax kii li muy perte ci date bar na ma mën a dem Tiwaawan déclaré ko gendarmerie ak euh, euh, ak euh, sapeur léegi foofu la ma médecin bi ni ma doo dem yow toogal moo jël téléphone am woo bi ni ma foofu sax am na ñu fi wax ni sapeur daf fee ñëw sapeur ñëw fi. ambulance bu bu bu Pire moo ànd ak man ak ak médecin bi ñëw moo ko jël waaye ko vraiment euh, ko pour ñëw fi bi mu bi mu moom moom médecin bi ñëw mu xool ko mu xool bas fi mu tëdd mu dëppoog la ma ko wax ndax moom ba ma ko defaat na sa mënu ko am dañuy yow da ngaa da ngaa da ngaa kii da ngaa jaxasoo rek waaye bi mu dikkee ba xool ko xam ne la mu ko waxan moo dëppoog li am léegi nag euh, ni tuuti ay 15 minutes yooyu lañu am commandant bi ñëw ak i gaayam ba ñëwee def seen liggéey hmm, eh, woote renfort ñu ñëw jàpp ñi nga xamante ni ñoo def defanga bi jël leen par benn yóbbu leen ba ci loxol yoon foofu lañ toll. Hmm. jamono ji ndax ñaata soxna la fi bàyyi moom. ñeenti soxna. Hmm. xamante ne ni moo di doomam bi ñu gaañ moo fekkee yëf. waaw mu ma toog moom aussi. mënoon andil seede ci sa frère lan nga ñuy wax. baax rek mhm. baax rek lañ ci mën a wax. Mhm. fi mu ngeen di xaar ci yoon. xanaa yoon def liggéeyam loolu dong lañ ciy xaar. woo nañ leen euh, déglu nañ leen. absolument nañ ñu déglu leen ñoom it mhm. li ñu war def mu déglu ñu déglu leen def nañ ko noo ngi leen di déglu ba léegi. la bàyyi nga sànni si sa kàddu gu mujj. waaw kàddu sama kàddu gu mujj mooy li ma bëgg rek mooy yoon def liggéeyam. njaboot gi nga xam ne suñu borom dogal na euh, seen papa wàcc ab liggéey tan faate nii yar nañ leen teg leen ci yoon ñoom njaboot gi nga xamante ni ñoo fi nekk ñoom seen njaboot gi fi nekk lu yàgg yàgg yàgg moom ba njabootu Basiru Mbay gën a faar ma dal ci seen ko leen def daal loolu moom du am incha allahu rabbi ci yoon la ñuy tege ndax dañ noo yar ba yoon def liggéeyam rek loolu rek loolu ñu bëgg.